salaamaaleykum mbokk internetu xewal gi TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér comme ni ñu ko daan defee at mu nekk ren nag ñu ñëwaat fii ci Touba Saloum mu nekk 22e édition màggal gi nga xam ne Serigne Bamba Seck dina koy amal at mu nekk di ko defal waay juróom wu tedd ba tey nag ñu ñëwaat gis ngeen convoi bi nii ñu dem jëli ji ki nga xam ne mooy Serigne Saliou moom Serigne euh, Mbacke Soxna Lo moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma moom Serigne Modou Moustapha moom Serigne Touba moom lañ jële woon nii gis ngeen convoi bi Serigne ji at bu muy teew fii ci Touba Saloum ci màggal xam ne Serigne Bamba Seck da koy amal mbooleem taalibe yi di jógee fépp ci Sénégal di ñëw di fi woy ci gis ngeen convoi gis ngeen Serigne bi ginnaaw bi ñu ko jëlee jëyee ñu ànd ak moom dugg ci nii biir Touba Saloum fas yéene wàcc fii nga xam ne mooy ci jumaa ji bu ñu jógee ci jumaa ji euh, bu jullee tusubaar ba noppi ñu amal fa ab waxtaan dem ci kër ga lu baree bari dina ci xew ba ci euh, bu noppee ñu berndewu ngoon gi ñu matal li nga xam ne mooy mooy waxtaan wi ak njàng ma fa fas yéene am gis ngeen convoi allah muy Serigne Saliou moom Serigne Mbacke Soxna Lo moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma moom Serigne Touba kon euh, waaw tarkal Serigne Saliou ngi noonu di wàcc ci oto bi waaw ñi koy ziar bu baax Mbacke Balla waaw moom mooy Serigne Saliou mu jógee fi nga xam ne fële mooy Taïf tarkal la macha allah. comme ni ñu ko leen waxee rek at mu nekk Serigne Bamba Seck di ko amal mu nekk vingt-deuxième édition fii ci Touba Saloum mu nekk màggal gi nga xam ne da koy defal way juróom yi ñu ngi noonu Serigne baa ngi noonu di wàcc ginnaaw bi ñu jógee ci li nga xam ne mooy euh, gàttandu bi ñu ko gàttandu euh, gan ñi bu ngoon gaa ñu matal li nga xam ne tey mooy yeneen yi ci des kon sëriñ baa ngi noonu tarkal la macha allah waaw gis ngeen ko mu ngi noonu di dugg ci ànd ak ñi nga xam ne ñooy euh, taalibe yi waaw. sëriñ baa ngi noonu ànd ñi nga xam ne ñooy taalibe yi gis ngeen ko mu ngi saafuwante ak sëriñ ci mu ngi saafuwante ak sëriñ Bamba waaw ni ngeen ko gisee tarkal kilifa yaa ngi noonu mu ngi saafuwante ak ñoom macha allah tarkal la waaw mu nekk image bu kilifa yi tarkal la ñoom ñëpp a wàccee seen bopp jox ko li nga xam ne mooy wàccuwaayam moom sëriñ Saliou moo ngi noonu ngeen koy gis waaw gis nga yegg see ci jumaa ji ñu ngi nii Touba Saloum mu nekk 22e édition waaw ñu ngi fii le 9 juin. fi ci Touba salu magal nga xamne Serigne Bamba sek da koy amal wajuram ne moom lañ doon ñaanal moñu ko jangalon waaw moñu moñu jangalon ñu ñu sax ci ndigal ta moytu téré waaw ta lool lepp day delu rek ci jangalem ku tedd ki Ahmad Bamba kon bismillah tafadal ñi ngi leen di dalal bu baax rawatina euh, fi nga xamne ni fi ngeen euh, wacc ci muy euh, neegu suñu borom bi loolu dal na xel lool sedd na xol lool wax deug yalla Euh, loolu mooy li nga xam ne moom la kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon ne nañ ko féddali ci kanam sëriñ bi xamal ko liggéey bi biñ ko commencé ak léegi ci barab bi noonu lañ ko noonu lañ ko suba gi bu ñu xëyee fa la ñuy xëy ba waxtu julli jot ñu dem wàcc julli ji waaw bu loolu paasee tamit bu 15 heures jotee ñu dellu si waat nekk ci rek ba jant so ndax sëriñ Bassirou sekk dafa waxoon ne ku way jur gërëm booba yàlla gërëm kasalak si bilaak si lii mooy la am teg ci ne ma de ñii ma jur ñëpp dañ maa gërëm njëkk ak faatu ak fàttale laajal ko xam waaw sëgam nag moom loolu la am du jomb mu wane ginnaaw euh, mu lu mel nii ci ay reet itam ci ay leeram euh, di ko taxaw ci lu mel nii ndax la fa des ci li nga xam ne moom la doon dund lii rek la Sëriñ Tuubaa moo ko wax isi doa u yan faw maytan fil xubóor wa yan fawl xayya wa yujibal ujur waaw kon loolu du doy du doy benn yoon waaye li ñuy ñaan rek mooy yàlla na ko yàlla nangu gërëm ko bi jaay nabil mustafa te liggéey bi yàgg lool te ñu yàgg koo ànd jàmbaar yu tedd yii yalla nañ ko yag and ak suñu jambar yu teddi yalla yàlla nañ ko yag and ak suñu jambar yu teddi bi jay nabil mustafa waaw Serigne bazour Seck neena cheikh seexang ci kër gi rombu na barke warna ha marke ngir sant hamdi kon li nak lenen la wessu na barke kon nak no rek la nek tay ci sant googu rek ak yeg yeg bobu lañu am waaw waaw ngir sant Mbàkke ak ami banke taxul cheikh Mbàkke wàcc fa hamdi wilaya xam-xam muriidu am am taxul nga xey am cheikh Mbàkke amdi moy ni kon li lenen la wessu na karama jeri ngeen assalamu alaykum wa rahmatullah gis ngeen ginnaaw bi ñu jullee ba noppi Serigne baa ngi noonu Serigne Saliou ngi génn ak délégation bi ci jumaa ji fas yéene dugg ci barabu Serigne Bassirou barabu Serigne Bassirou Seck bi mu ngi noonu gis ngeen waa tarkal Serigne baa ngi noonu ñu ngi fas yéene dugg ci barab bi nga xam ne mooy barabu sëriñ Bassirou bi dugg fa ziar def seeni ziar ginnaaw bi ñu jullee tisbaar ba noppi kon mbokk internetu xewal gi TV ñoo ngi noonu ñoo ngi leen di toppal lépp loo xam ne moo ngi xew fii tey ci Touba Saloum le 9 juin di 22e édition màggalu Serigne Bassirou Seck ki nga xam ne mooy Serigne Bamba Seck di doomam di ko amal fii ci Touba Saloum kon ñu ngi leen koy toppal moo ngi noonu gis ngeen Serigne bi dugg na ci barabu Serigne Bassirou bi di def ziaram mu ngi ànd ak délégation bi ak Serigne Bamba Seck tarkalla macha allah mooy seen i moomeel ndax sëriñ Bassirou Seck daa nekkoon kenn koo xam ne ci lislaam ku nekk xam ko ku nekk xam jaar-jaaram ak jëfam ju ji mu jëf ci diine ji kon tey bis bi bu ñëwee sëriñ Bamba di ko amal at bu nekk day nekk lu spécial day nekk loo xam bis bu ñëpp doon xaar la bisu ñaan la bisu fàttaleku la tarkal la macha allah kon noonu lañ ko gisee mu ngi noonu ginnaaw bi ñu jullee ba noppi ñoo ngi ci barabu Serigne Bassirou Seck bi di fa amal seen ziar Serigne Saliou mi nga xam ne moom euh, Serigne euh, Bakke Soxna Lo moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma moom Serigne Modou Moustapha moom Serigne Touba moo ngi noonu ci barab bi nga xam ne Serigne basiru Seck ñoom la dénkoon boppam. gëmuloon kenn ku dul sëriñ kër Serigne Modou Moustapha ginnaaw bi mu fi jógee it noonu la ñu ko toppatee ba ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Gaynde Fatma ba ci Serigne Mbacke Soxna Lo ba tey ji Serigne Saliou kon bis baa ngi noonu tarkal la ñu def délégation bu am solo ñëw ñu ngi fii tey ci Touba Saloum kon lépp loo xam ne rek euh, am na fi dinañ leen ko toppal dinañ leen ko wan macha allah tarkal la kon tarkal la mu ngi noonu daa ngeen jëf. délégation baa ngi noonu waaw macha allah gis ngeen ko def nañu ziar ba noppi. ñogi jëm kër ga mo gën manu maanu ku moom la mark ngey day la ban ma kiiroom la jiidu yaaw du am de tuusi de xol gay na ñemeet bo wéer ak do ki manam ñu dig du ti la boole yooyu ko dëppoog samaane jojin taarixa Cheikh Ban ba si kéy mooy jikko ji baabe kugon yamu buude todde waa foraaɓe ɓe ɓeyruuta mo kahamal te kehi jaas hirondende ɓiɓo heɓode ardu leggan haral temondu faali layiɗele soppeya nanunde mandi moɗe ndi moɗe kalge yima moƴƴere yaga jeɗuna yima moham jeriñ te moy ɓoram hinaya Euh, salaamaaleykum mbokk internetu xewal gi TV ñoo ngi amaan mbégte ak contentement di teewaat fii nga xam ne mooy Touba Saloum comme ni ñu ko daan defee at bu nekk euh, saa su ne dañu fi daan teew ci màggal gi nga xam ne Serigne Cheikh Bamba daan na ko abal di ko defal way juróomu tedd ba di Serigne Bassirou Seck tey nag mu nekk 22e édition fii ci tubaa Saloum tombeeg le 9 juin fii ñu ñëw assister màggal gi bi ñu fi ñëwee fekk nañu fi ay kilifa yu màgg ay kilifa yu tedd comme ni ñu ko tàmbalee gis ngeen délégation bi. mi nga xam ne Serigne saaliw jiite na ko Serigne Saliou moom Serigne Mbacke Soxna Lo moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma moom Serigne Modou Moustapha moom Serigne Touba ginnaaw bi ñu ko teertoo ba noppi dem ci jumaa ji julli tisbaar mu dugg ci barab bi def ay ñaanam def ay jaaram tey ñu ngi waat delsi ci kër gi fekk fi kilifa yu màgg yu tedd yoo xam ne suñuy mbokk la ñoom itam di yëngatu ci ay ci mbiru presse ba noppi suñu borom may leen xam-xam yu sell tarkal la macha allah ñoom lañ bëgg a fas dëkk micro bi laaj leen seen teewaay ginnaaw bu ñu présenté ba noppee lan moo waral seen teewaay ci bisu baam bi xam naa dañuy jox kilifa gi euh, mu mu présenté sëñ Habib mu présenté kilifa gu mag gi nga xam ne tey moom laa ne sëñ Habib salaamaaleykum nuyu naa la. salaam waa Xewal gi TV Nioro ñu ngi leen di euh, nuyu comme ni nga ko waxee. di leen ñaanal yéen itam ñi fi teew Baye Sall di nuyu kilifa gi xam ne moo joge tuuba waaye nuyu kilifa gi xam ne mooy amal ziar bi muy Serigne Ahmadou Bamba sekk moom sa ba si moom Seydina Alioune Seck bu Touba Darou Salaam wanaat bis bi nag tey bisu xéwal la bisu tiraanga la waaye euh, présenté leen gan gu màgg xam ne la ñu àndal moo nu tax a jóg waaye balaa loolu dañu nuy waa Màkka ña ngi xam ne ñoom lu Touba Saloum xew la ñoom ñuy jiite njàngu alxuraan karim muy waa Màkka ña ngi si jiite sëñ Moustapha ak ñi ñu àndal kii mooy oustaz euh, Mortala Ndaw nekk ci rajo bu ñuy wax Pakal FM Nganda waaye ma nga cosaano dëkk bu ñuy wax Ngéej euh, commune bu Sagna arrondissement bu. Saña département bu Mbalem ne sa région kafrine tay bu ñëwee ci département bi di ñoro dafa fekkale ci mbokk taalibeem serignam xaritam ndax diggante murid tidiane benn la depuis sëñ Tuubaa maam Alaaji Maalik ba léegi moy wéy mom nak mu dégg bis bi xam bi moy sabab tay mu ñëw teew fi doon ko fu fu fu yoonu lislam woote rek ma nga fa duñ wax ne fu yoonu tidiane woote wala yoonu murid fu yoonu l'islam woote ma nga fa ndax ni ko la kon tay bu ñëwee ci bis bi rek war na fi ñëw moy oustaz ndaw lañ leen di bàyyi moom tam wax sabab bi xam ne moo tax mu ñëw ci bis bi wax ci bis bi di leen ñaanal daal site bi yokku ba ngeen am télé bu mag boo xam ne ñëpp dañ koy seetaan ci région bu Kaolack du ma département bu Nioro rek waaye fii ci commune bu Daru Salaam ñoro profité si nuyu délégation monsieur le maire si sec ñu ngi lay ziar di nuyu monsieur le maire Moustapha Thiam mu doon Abi Mbaye Pakal FM waaye ñu ngi ñëw fii tey ci Touba Saloum dëkku Cheikh Modou Bachir njaboot la ci signal Alioune sec doon tamit ku xam ne sëriñ bu yàlla tànnoon la mu doon ku doon jëriñ ci wàllu sayer ak baatin kon daal xéwal gi TV ñu ngi leen di leen gërëm di leen ñaanal nag télé bi yokku asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf Serigne Habib comme ni nga ko waxee tarkalla macha allah présentation bi am na solo dal na teey na te nit ñi comprendre nañu ndax ni ma ko déggee mooy kilifa gu mag nga àndal ku tedd ki nga xam ne lislaam rek ko ñor moom tarixa taxu ko jóg waaye dafa nekk koo xam ne diine lislaam fu mu woote rek daa day teew moo waral mu def déplacement tey xoolul fii laa bokk faa laa bokk mais day xool li nga xam ne ñun ñoo ko bokk muy yàlla ji ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom nañu koo séddoo kon jàpp nañ ne loolu lu am solo la ci réew mi ndax ñëpp fa la ñu war a toll muy demlante te yàlla rek xam ne yàlla ji ñoo ko bokk yónnent bi benn la muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yaa oustaz ginnaaw bi ñu la présenté ba noppi euh, ñu xam yaay kan nga nekk tamit koo xam ne yaa ngi bàyyeekoo ci rajo bi ñuy wax Pakala FM mu nekk rajo boo xam ne di fa def njàngale yu am solo macha allah tarkal la di dimbale doomu aadama yi ci xam-xam bi la sunu boroom dégg ginnaaw loolu présentation bi dañu lay bàyyi yow itam nuyu la ginnaaw bi ñu la asalaamaaleykum wa ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk internetu Xewël gi TV ñu dugg ci waxtaan bi auzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nahmaduhu wa naskuruhu wa nasolli ala nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima wa baadu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tabarakallah gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu umma islam yëpp eh, ci Sénégal ak ci Gambie ak ci adduna wërngal këpp di leen di siyaara tabarakallah di leen bal aq waaye di leen bal aq it di ñaan yalla mi ñu yalla bu lu jéggel ñepp ci barke yentibi alayhi salatu wassalam defal ñi xewal gu mar sekk nak defal ñi jamu yalla gu yalla nangu ñu ngi leen di nuyu yentibi tamit seen taxaway ak seen teway yeen xewal gi tabaarakalaaw xewal nak bu ñu ko waxe matali na lepp tabaarakalaaw kon nak xewal gi ci ah, xamna bu ngeen mantalon seen turu euh, xewal gi dana am solo wa wa yalla na defal leen jamu defal leen tawfe ñu leen nuyu di leen ziar bu baax di am bekk ci seen dina it suñu bokki makka ñi ngeen ni comme ni ko Seydi Abi waxe tabarkalaw di leen ziara waaye dañuy suñu mbokk yi bàyyi ko Kaolack ñoom ñu sant Caam tabarkalaw ak ñu sant Soxna bàyyi ko ba Kaolack ñoom tamit ñoo teewee ci jotaay bi dañ leen nuyu di nuyu nag kilifa dëkk bi di leen ziar di leen bala ak bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bi am na solo macha allah ginnaaw bi nuyoo bi weesee bëggoon nañu xam tey lan mooy sa teewaay fii nga xam ne mooy Touba Saloum ci màggal gi nga xam ne sëriñ Cheikh Bamba da koy amal di ko defal waaye juróom bi ren mu nekk 22e édition tombeek samedi le 9 juin tey tubaa Touba Saloum lan moo waraloon tey teewaay jërëjëf euh, sant nañ yàlla bu baax nga laaj ma laaj bu am solo lan moo waral suñu teewaay euh, sa biir njëlbeenu wax wax nga ci yàlla. wax nga ci yonent bi alayhi salaam sunu borom bi tabaraka wa taala eh, bi mu nar a dara moom kenn la woon lawla Muhammad wala aras wala kursiyu wala sama wala ard yàlla kool ba mu yàgg mu bind ci leeram gi bind ci leeru yonent yàlla Muhammad wa innahu is arada la unas atana abbaana mi nuurihi nuuri nabil alami waaye nag bi mu bindee leeru yonent yàlla Muhammad la mujj bind jëmm nabil Mustafa mu nekk jëmm mu tànn ko ci lépp lu mu bind mu gënal ko ci lépp yonent boobu mën a moo ñu boole takkee ñu te yàlla wax ci alxuraan wa'tasimu bi hablil jamii wala tafarraqu jàpp leen ci buum gi bu leen tàqale ko te muy jullit ak morom ka bu di jullit ak morom ka it tabaarakalaaw yàlla am lu ko may may ko may gi ko may te yonent bi wax na ne akramal ulamaa fa man akrama faqad akramani wa man akramani faqad akramalaa wa man akramalaa bu mu janna loolu yonent yàlla Muhammad moo ko wax te hadiis la bu wér la nee na leen borom xam yi ñu ne ko ndax lan. mune ku teral mo ngi melni man nga teral ma ñu nako yow nak mune man ku teral mo ngi melni yalla nga teral ñu nako yalla nak yalla na man ku teral sama dekk waay aljana motax buñ la sëriñ dañ duggal ni aljana ko amul xam-xam di déedéet waye etage bi bi nga yëg jaar ci escalier kon sëriñ ci ñuy bunt bi wa atul buyutu min abwa fa anta babu lay ibni ataw bi qarif lay doxlo man mënta duggu ci neeku yalla ta jaaru ci rasulullah kon buntu baa ngi kon suñu sabab ñëw fi lool la yalla ak yonent bi ñu ñu takké ñi am mbégte ci mu ooti bis bu mel nii ñi fekkale ko ci. wax nga léegi sànq ne xoolut Tidiane xoolut mu xaalu xaal déedéet dama wax toujours ma ne loolu buñ koy xool dañuy échec ndax jullit lañu wax xam nga wax naa léegi waa si moo bi Abdoulaye Diame wala tafara ko jàpp leen la wax ci buum waaye bu leen tàqalu ko kon foofu murit new fa Tidiane new fa xaadir new fa jullit dafa ne boo bëggee xool ne jullit murit ak Tidiane ak xaadir ñoom ñooy da nga néeg bi nga nekk su dee néegu ñax xam nga ko yow ña xam néegu ñax puuj ba mooy rasulullah yi gayet ba mooy kilifa yi laaj mooy yeneen euh, tarixa yi waaye nag man ñax moom mooy taalibe yi ñax mu ci muux rek yàqu mooy taalibe boo xamante ne jéng nga rek da nga yàqu kon buuj ba daal mooy rasulullah ñu ñëpp ko bokk loolu ñu fi indi yàlla moo ñu fi indi yonent yàlla moo moo ñu fi indi ak bokk moo ñu fi indi ak ak taalibe moo ñu fi indi bëgg faslante ànd nekk benn moo ñu ci bés bu tedd bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci at bu tabarakallaahu fii ci dëkk bi nga xam ne mooy Touba Saloum fekk fi mbooloo mu tedd mbooloo mu euh, takku mbooloo mu am diina mbooloo mu asalaamaaleykum tabarakallaahu suñu mbokk yi fi teew si léegi euh, di suñu sëriñ ñu mbàkki mbàkki tabarakallaahu ñëw fi tey ñun bu ñu waxee ne ay tijaan ak murit ñu loolu xamuñ ko yàlla man dogal na ci suma jëmmi bopp man aw ma loolu man fu ma dem rek mën naa fa ne maa ngi jokkoo ci kër Seydil Hadji Malick radiyallaahu taala anhu euh, ci Alaaji Abdoulaye Si Dabaax mooy sama wasila mooy waye do du la ko waxoon do doo ko xam ndax it duma ma ko jëfee waye fuma dem man na fa and ak ñom bo demee Touba fekk ma fa so demee fenen fu def na sama mbokk caamin caamin ni ma ngi waxtan ak ñom bi ñëwé légui may lam bo Touba salle de résidence da nga fekk seigne Bass Abdou khadir dalal ñu kon waxta si mo bi ñëw na waye dal lañ gëm ne yalla mom yalla la yalla mom mel moy buntam bi keneen kuy ñëw nak da ngay jokk ci ñoo waye mënu nak dem ci yent bi wala nga dem ci yalla amna fu mu lay jaar pour nga jaar fa nga tey bi ñu ñëwee micro bi tey ci lay waxee waaye mu ngay dem fee kenn bu demee bu ngeen ko tasi ëllëg adduna yi war a jàpp ko kon lii mooy bunt bi waaye dëgg mal baa nga ne kon ñi ngi sant bu baax di gërëm di ñaax bokk julli nañ ànd nekk benn nañ jàppante te yàlla tax nañ doylawante te yàlla tax nañ ànd te yàlla tax te bañ a nekk di xaajale ndax diggante ñaari xeer nen xaju fa diggante ñaari xeer nen xaju fa kon tabaarkalaaw jarul ñuy guddal wax ji waaye am nañ mbégte ci teewaay bi am nañ mbégte ci seen teewaay tabarkalaaw waaye daal li wéttuwu daal pour ñu xamal li xew mooy yàlla ak yonent bi képp moo ñu ñor li kuñ ci teg ci nangul leen sëriñ bu ne nangul leen li samay tabarkalaaw am na fu ñu téye nag waaye sëriñ bu ne nangul leen li samay bi bi daal fekk nga oto yi gaare am na bu rang ba dem te duggoo ci am na bu egsi nga dugg ci départ am na bu ne sa ginnaaw yow nag bi ne sa ginnaaw bul wax mantu daw bi ne sa kanam bul mantu wax mantu daw bi nga dugg ba egg na sañ ngaa ne mën naa daw waaye bi ci kanam xamoo ci dara lii si liñ ne ñu ngi balu àq bu baax di jégalu bu baax di leen leen balu àq bu baax di xam ne yàlla daal moo yàlla yonti moo yonti yàlla maam tabaarakalaaw ñu ngi balu àq wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf oustaz ci kàddu yi am solo yi tarkal la macha allah ku déglu kàddu yi xam ne kilifa moo doon wax ku déglu kàddu xam ne kàddu njàngale la kàddu boole la kàdd gi nga xam ne lislaam loolu la bëgg saa su nekk ñuy booloo di nekk benn mooy ci buum gi nga xam ne mooy buumu yàlla ji kon loolu moo ko moom la oustaz wane ndax amul tijaan amul murit amul xaadir amul laayeen sëñ bamba nag nekk kenn koo xam ne bu wootee ku nekk ngay gis ndaxte ren ñun yàlla def na ñu ngi ciy teew at mu nekk gis nañu ne at mu nekk day gën a yokk nit ñi dañuy gën di ñëw mbooloo mi lislaam genn la ñun ñëpp ñoo ko bokk oustaz ñoo ngi sant bu baax di kontaan ci kàddu yi am solo yi nga xam ne amal nga ko ak délégation bi nga àndal ñëw ci bisi di ñaan yal nañu suñu borom boole defal nu tawféex defal nu jàmm defal nu xewal ba bu déwénee incha allah ñu waat fi ñëpp yokk ñëpp am tawféex ñëpp am xewal kon ñoo ngi leen di jaajëfal ba ci kanam incha allah ci yeneen i reportage ak yeneen nit jaageen jëf